yàgg na mais tey la ko yàlla dogal ñu bëgg na jàppale mun Ndiaye Rahma yàlla rek tax Mbàkke Mbuub mi sonn ci loolu nag chaque jour muy wax te Mourou Ndiaye mi dañu ko bëgg a jàpp ndax gis nañ li muy def ci dëkk Kaolack nangaan yëpp moo tax ñu bëgg koo jàppale gannaaw yàlla ak yonent bi te am nañ ci moom yaakaar ñu nag dañoo nekk ay ndaw nekk ay jeunes nekk Kaolack di defar di jaay nekk suñ natt am ay yenn su caabi chaque dimanche ñu taxaw defar ba mu baax ngir lépp rek bëgg ku gis mon njaay mi mu def lu bax ci kawlax nanga motax tax ñu ne ñëw ñu jàppale ko te inshallah rabbin ñi ngi ñaan mon njaay fu mu bëgg ag yalla nako na ko fa yàlla àggale barke Cheikhouna Khadim wasalaam merci beaucoup. man nak dama yor groupement bo xam ñun bañ koy commencer kenn fekk ñu ci ba tay suñu témèr ba tay ñu ci 15 millions sha allah ben politicien mu suñu ñoo té ma nga quelque fa 1200 fans suñu kër chaque dimanche soir lañuy dajé ñu nga nee toog ay jàmbaar ñii di jaay fonde ñii di jaay caag bi ku ne la ngay jaay ci la ngay yëngu loolu la ñuy dajale di ci liggéey kenn mësu ñoo seet si nag gulee tey gis naa lépp nag mais gulee tey politicien ma taxaw nii di wax ci ñoom ndax aw ma woon jot boobu liggéey rek a ñu ñor léegi nag gannaaw ñëw nañ ànd ak mun njaay raxma dañoo bëgg damaa bëgg lépp lu jigéen di yëngu ci Sénégal ci Casamance ci Kaolack mu boole ci samay jigéen looloo waral tey lii ñu nekk association boo xamante ni nii dañoo nekkoon foofu euh, nekkoon ci Sonko ki nga xamante ni nii moo ñëw fekk ñu fa seet ñu muy Thierno Thiam bi mu ñëwee mu convaincre ñu ne ah ñun kat dañoo bëggoon nga liggéey ak euh, Modou Ndiaye Rahma affaire bi convaincre ñu après mu def ak ñun réunion bi mu def ak ñun réunion tamit à travers Ndeye Abi Fall présidente des jeunes. moom tamit yàlla dimbali nañu ak moom mu nekk koo xamante ne nii am na l'art de bien parler bi mu ñëwee suñu koñ fekk fa ñun ñëpp macha bi mu defee ñun discours ñëpp gis nañ affaire bi neex leen grand yeeg mag ñeeg ñëpp jàppale ñu dañoo bëgg kuñ jàppale pour ñu soqali suñ koñ bëgg nañ association bi li mu doon def te amul doole ji soo ñëwee nga defal ñu loolu te li ci gana a neex mooy fexe ba picc mi lappi-lappi di jéem a dékk koo xamante nii

ñi fi nekk tey wala ñi nekk sax feneen di liggéey moo xam ci kooku wala ci keneen li ma jàpp mooy responsable yi nekk ci keppaaru président Macky sàll ñoo doxut dem ci ñoom rek waaye li président def ci réew mi ak fi mu jaar ku ko leeralal askan bi dama ne duutu amati opposition ci réew mi. dëgg la parce que li mu def ak lim ni def ak lim jot a def ba pare ak lim xalaat a def. ak lim nekk naal ko tey ak lim sumb ca yeggagut dama ne loolu sénégalais bu ko xam bu ne futteeku jàppale ko pour mu def ko kon li may wax mooy waxuma fii ci Kaolack fii waxuma ko waaye même yeneen responsable yi nga xam dañoo nekk ci yeneen région ak yeneen département nañ jege ji population bi wax leen li Macky sàll bi mu jotee réew mi ak tey fi mu jaar ak li mu def ak lim nal ak lim fas yéene def ak suñ jëm ëllëg dama nag buñ ko xamee amuñ benn idée lu dul jàppale ko pour mu réussir loolu. fii li fi xew tey muy présidente yi nga xam ne wax naa léegi ci présidente Ndeye Sakho ak trente comités yi mu dugal bees ñu gën a ci raxma jóge fa dem ci président Fat Ñang Buur Géwél Fat Ñang Buur Géwél moom it macha allah jàmbaari fàkk tëdd ku ñeme li muy def ku ñeme it li muy wax. moom itam dajale neuf présidentes yu bees yoo xam ne moom itam topp na ma ci fan yii yëpp ma ne ko nañ leen indi ñu dugal leen tey ci audience su tey bi. di nuyu Adja Fatou Wan moom itam Adja Wan moom itam indi na fi juróom-ñetti présidente loolu soo ko boolee yaakaar naa dafay dem daanaka ci 47 comité yu bees yu gën a si raxma tey Thank you.